juróom-ñaari yoon googu julli ak fayam moo di aljanna te ku ko def yàlla dana ko musal ci lépp lu mu ragal te bu ñaanee xaajoom borom bi subhaanahu wa taala dina ko ko fajal te seytaane dina koy daw bu faw te dina deewaale ak ngëm yàlla ci mbooloo mi njëkk a tàbbi aljanna ci lay bokk mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral dangay dellu ci xurratu ayni bu Sëriñ bu Mbàkke page 148 yaa xayra dayfin ataa